Amin fondation bi tënk si biiram surtout maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoo doon amal reboisement fii si Baye Fall gi si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi ñu jotee ndigal si xalifa général des Baye Fall Serigne Modou Mende Fall liggéey bi ñoo ngi si ànd ak service yi saytu wàllu reboisement fii si Sénégal mu doon xàll bu yaatu penc biir kër gi ak it ay ale ñu fa seeni ko nag reboiser ngir ëllëg liggéey bi ñoom wetuñu si ndaxte am nañ si ay partenaires ñuy profité doon leen sant si taxawaay bi waaye tamit dellu si si li si objectif bi tey nag dañ fee ñëwoon ngir bisub njëmbat bi nga xamante ne ginnaaw bañ ci amee ndigal ci sëñ am ni Modou Mbenda euh, ci datub le 12 bi loolu la mbooloom yëpp te mbooloo mi nag mooy mbooloom ak Fadou Cheikh Ibrahima muy kuréel goo xamante ne dañoo nosu ngir liggéey seen maam Cheikh Ibrahima ndax ci fàttali kuréel gi képp ku ci bokk rek suñ borom dogal na ngay deret ci Cheikh Ibrahima kon loolu moo ñu boole ñu am engagement ak yitte ju kawe bañu amee yitte yi nag mu yitte fii ci Baye bi ñu jëmbat ci ay garab yoo xamante ne danaan keru waaye tamit dana mën a am gàncax goo xamante ne maanaam dana jariñ ñëpp ginnaaw bañ ci amee ndigal sëñ am ni moo du mel na nag booba tey noppalootuñ waaye nag tey jii ci la dul moo doon dat bi nga xamante ne moom lañ joon jàpp ngir def ko waaye bis bi démb la tàmbali démb ci àjjuma bi ñu ngi ñëwoon nag ànd ak mbooloo mi ngeen gis seen ginnaaw muy mbooloo mi nga xam ne état yabal na leen ci muy commandant eaux et forêt ak commandant wilay verte euh, li nga xam ne moo doon yéene ji ba tax na ñu woote fii ngir bëgg a jëmbat fi ay garab bokk na ci taaral ak wéram ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ndax képp koo xam ne yaa ngi tudd Cheikh Ibrahima Fall ñu jëla tudd war nga xam ne yow lu jëmale réew mi kanam rek war a doon sa yitte rawatina fii ci Touba ndax ab taalibe ngay doon ab jullit ngay doon ab murit ngay doon waaye yii yëpp nag daa làmboo yitte ak njariñ moo tax ñu def lii lii ñu def itam xalaat la bu kawe kawe boo xam ne lii suñu yéene mooy jëmee ko fu kawe njot moo tax ban jógee itam ñu tàllal suñu loxo ci mbooleem fu jàpp ni tane nga ñu ci lii ñu soxla wax dëgg yàlla talalu juñ ko fenn ñu gàntu bi fa saase rek ñëw nañu seen yitte ñëw nañu seen bëgg ñëw nañu seen ak mën kuñ ci tuddee ku mel ne soxna Asufal ak mbooleem ñun àndal euh, liggéey bi nga xam ni jàpp nañ ci liggéey bi rawatina garab yi jàpp nañ ci jàpp nañ doy kéemaan di ci tudd monsieur le maire Abdoulaye Kharka moom bis biñ ko gisee nga xam ni daanaka dañu tay la suba la ñu dem ci moom mu wane ci yitte wane ci positif wane ci ak bëgg ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal seen borom subhanahu wa taala mu dolli ko kattan dolli ko xéewal ba lu ñu fas yéene la jël seen Tuuba mu def ko tam fekke ko te kenn ba ñu caaman euh, loolu itam moo moo moo mooy suñu mooy suñu yéene mooy sax ci def lu baax dëkk ci di ko def mooy suñu yéene moo taxaw daara ji sos ndax li ñu boole muy Cheikh Ibrahima Fall daa doon lu dëgër doon lu wér doon lu rafet moo tax waxtu wu nekk rek dañu bëgg ñu gën a rafet di gën a baax di gën a lii buñ ko mënee tey jii tamit. dañ ko man ndax ak faadu dafa taxaw bem sosoo ci ndigalu sëriñ am ni moo di mel na dana am ay vision yoo xam ne dafa gën a yaatu gën a moderne laal ci ay couches yu bëree bari laal ci forme yu bëri ci volet économie volet social volet culturel ak lépp loo xam ne dañ dañ cee war a indi sunu suñu touche personnelle ñun bëgg ko indi baaxe ko sunu yoonu maam bii ndax mën naa ne war naa mën a ne te ñi ko war a mënal mën a ñi ko war a mën a mën a nekkal ñoo ngi fi xam-xam baa ngi fi ñu ne kat nañu indi loola fexe sof sof suñuy dool ak suñu xam-xam fexe ba yoon wi lépp lu mu laaj ci modernité lépp lu mu laaj ci jumtukaay ñu teg ko pour que yoon wi ñu gën a mën a jekku ndigalu Sëñ Bàmba ji loolu nag moo waraloon refaire maanaam reboisement bi muy jëmbat garab gi buñ ko mënee itamit dañ ciy sant bu baax sëriñ maam Cheikh Fall Canada moom sëriñ Assane Fall ak mboolem mbokki taalib yi ànd ak moom yëpp di ko ci jàppale waaye tamit loolee tamit noonu la ñuy sante ministre de l'environnement ndax bala ñoo tudd waa grande muraille ak waa eaux et ñëpp ministre de l'environnement moo leen bokk yilif kon ñoo ngi sant bu baax ministre de l'environnement waaye di sant bokk waa waa grande muraille ak waa eaux et forêt yi nekk Mbàkke yi ñu ci jàppale lool waaye di sant délégué kàcc yi waaye dang di sant ñoo xam ne ñoo bokk yoon wi ñoo bokk tool bi ñoo bokk tool bi di ci bay muy waa mu Mouride di suñuy lépp ñooñu tamit gis nañ taxawaay am solo biñ ci def ñoo ngi leen ciy sant di leen ci gërëm waaye nag fii ñu ko def ñun yeewuwuñu fi suñu pàkk la waaye yeewuwuñu fi ñu fi yeewoo ñoom it ñoo ngi leen di beral ab cant ak ak ak ngërëm waaye tamit gis nañ ni ñu àndee ak ñun liggéey bi. commandant Thioy mooy directeur de la reforestation nekk si agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille ñëw ci solos mbir mii ak jeexintal yi mën a am si climat bi ginnaaw bi ñu nemmeekoo ni kat lépp dafa tëradi si wàllu climat te garab mën naa indi solution. njëriñu garab yaakaar naa ne fi mu toll nii du ñu nuy laam-laam ndax yi ci dëkk bi mais li ci àddina bi it ñëpp yëg nañ ko waaw te garab yi commencé wàññeeku moo mooy indi tàngoor woowu ñuy yëpp léegi nii kon nag dafay baax ni fépp fu garab nekkoon ñu dund fa muy ay dëkkuwaay léegi ñu mën faa laal garab ndax lu mën a nekk la. kon ñuy ñaax nag lii ñu fi def tey nga xam ni coono wàccal bu rëy la waaye coono dajale garab yi dafa jaar ci sore sore sore ñu ñu commencé ca pépinière ba ñu koy toppatoo ba nin ko jëmbate tey kon ñuy ñaax ñi ñu nekkaloon tey ñu gën a góor góorgóorlu ci toppatoo bi ndax xëñ na li ñu def nii tey genn wàll liggéey ji la genn wàll gi ci des nag mooy di ko roose di ko toppatoo ba mu taxawal boppam su ko defee nag lañ ca jublu muy fexe garab yi daal di dund fii fii gën a naataat ñu gën a yëg ni fii péex am na fi ñu mën koo jot garab yi ñu fi def nag bari na waaw li ci jiitu mooy mango yi ndax mango yi ñuy waa gox bi ñoo ko laajoon waaw ñu ne bëgg nañ garab garab goo xam ne day maye ker waaye day am solo ginnaaw ginnaaw ker gi waaw te ñëpp xam nañ ni mango fi ñu toll nii ba ci international sax dañ koy utiliser di ci def ay jus ak yeneen ak yeneen yu ci bari waaw lu weesu nag njëriñ gi mu am ci aalam bi waaw def nañ ko aussi ay garabu ker lu mel ni eh, terminalia waaw lu mel ni aussi flamboyant ah, def nañ pital ca përëm ak yeneen yi xeetu garab yoo xam ne dañuy baax lool ngir maye ker waaye it dañuy dolli euh, ndox mi gën a mën a dem ci biir ci biir teen yi parce que lii tax inondation yi gën a bari loolu bokk na ci waaw ndax suuf si dafa commencé def li ñuy wax imperméabilisé dañ dañ koo tabax ba mu ba suuf si daa dëju dëju googu mu dëju moo tax ndox mi duggatul ci biir day day day jàll di rugalaat rugalaat yooyu nag mooy indi taataa yu bari yi ñuy gis ko defee bu ñu jëmbataatee garab plus dëkk bi di bari garab rek plus ndox mi di mën a demaat ci biir ci teen yi su ko defee inondation yi daal di wàññeeku loolu ñu ci ñaax nit ñi kon ñu gën a góorgóorlu ci jëmbat garab ba tey commandant Diop chef de service départemental bu eaux et moom it wane lii de c'est un exemple à suivre sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi wane nañu yoon wi. donc comme ni ñu ko defee temps yi rek ci corniche bi ci ndigalu xalif général bi Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér euh, jot nañu reboiser 34 kilomètres linéaires donc euh, tey jii ñu ñëwaat fii nii ci pencum Paaleen pour reboiser fi donc je pense que lii c'est c'est un exemple à suivre pour toute la population de Mbacké et de Touba. buñ ko defee comme ni ko commandant Thiel waxee sànq rek dina permettre tàngaay bi dina mën a wàññeeku dina mën a lutter aussi contre les inondations dina permettre aussi population bi njëriñoo ci garab yi ñuy jëmbat ci meññeef yi comme mangue yi yëpp am na ay pomme cannelle et autres. voilà donc ñu ngi rafetlu vraiment initiative bi surtout Cheikh Ibrahima Fall yi def. fondation bu mag bi si Touba ñu ngi nemmeeku ni nag seen taxawaay nekk na si wàllu éducation santé développement économie bii nag benn étape la si seen liggéey am na ñu yeneen naal seen kanam.